Mes chers internautes de la TMS TV ñëwati nañu ci seen émission bu mag bi moom mooy Petit Matin mbokk internautes yi bu ñu nee Petit Matin ni émission d'actualité émission de faits divers émission thématique tey nag émission bi duñ ci wéet ndax kat xam ngeen ni kat ah bu ñu nee thème ne Sénégal ndax Sénégal dëkku dëkku des affaires la par ci par par là et là invité grand humoriste moom moobu Serigne Sall moom moo nuyu nañ la Euh, jaaj yi maa ngi lay fay. naka sa yaram ba jàmm. waaw maa ngi sant yàlla alhamdulilah xanaa damaa xaw a kii rek waaw bi may yeewoo daal damaa yëg suñu waa koñ waxtaan mooy gis ñu teg lettre ci bunt kër bu ñu ne man lañ bëgg a def imam mooy lu bees looloo ma xaw a jàpp mooy nuyu bu baax ah, ki nga xam ne moo di Mariama sama xarit la waaw walaay di la nuyu bu baax a baax nuyu internet ci TMS TV. mbokk yi ba tey yéen ci seen émission Petit Matin duñ ci wéet tamit dañ ci ànd ak suma benn sista sista Mariama Mariama nuyu naa la. jaaji maa ngi lay fay di bëggee Momo sama frère di nuyu mbokk TMS TV yëpp maa ngi leen jiyaab weer gars yi ñu fas yéene wéyal dem ba ci kanam te nag bu ñu nee petit matin wax ci benn thème boo xamante ni mënuñu koo ñàkk wax ci jamono ji maanaam yàqante bu nekk ci aar bi ci showbiz bi tubaab naan ko le vilipendement vilipender une personne c'est c'est vendre une personne de manière négative dévoiler ses secrets ah léegi nag tey ñu ne foog ñu waxtaan si parce que foog ñu waxtaan si ndax mbokk yi ñun ñu koy laaj dafa metti lool nga sekk ak nit ci liggéey mu am ay affaires yoo leen sekk mu génne ko di ko tas lu leen munti sekk nag metti na yaa am tort wala yaa am raison ñun suñu yoon nekku ci l'essentiel yéen ngañ fi toog a yéen internet yi dañuy wax de façon bi nga xamante ni di ngeen comprendre lépp luy bonte lépp luy négativité ngeen épargner wu ci moom bu ñu nee ville vilipender mm-hmm. mooy yàq der mm-hmm. yow mi nekk ci aar bi di humoriste nekk ci showbiz bi aussi naka nga gisee yàqante bi nekk ci showbiz bi bon man en fait euh, loolu lu may lu may ñaawlu la mais ban cause moo tax nit yàq moroomam loolu dafa am solo Mhm. Ah, parce que moom moomoo du jóg di yàq jaaji nag jaaji def ko dara pour man soxor tollul foofu mais est-ce que amul lu ma jaaji def lu ma war a fayu te aw ma nan laa ko war a fayu lu dul ma yàq ko. mais chaque fait a une cause. waaw léegi léegi cause boobu nag moom bu fekkanta xamuñu ko duñ mën a juger ki def loolu noonu lan moo tax mu def ko parce que cause bi mooy mooy mooy mooy mooy base bi. léegi yow man je vais être direct avec tout monde parce que ñun bu ñu toogee fii. Hmm. te euh, internet di ñu seetaan dañ leen bëgg xamal bëgg leen. faram-fàcceel yëf yi ku nekk xam na ni showbiz dafa am loo xamante ni mooy wàllu production. Mm. bu ñu caractériser wu ci wàllu série yeeg euh, musique bi. Mm. gis nañu producteurs yi léegi d'après dañuy def promotion canapé. pour produire booy yi. Mm. loolu mooy feebu majeur bi. léegi booy yi aussi ñoom dañoo perte seen dignité. est-ce que perte nañ seen dignité. est-ce que promoteurs yi aussi euh, producteurs yi aussi ñu ngi def promotion canapé wala yow nga ñuy bàyyi nga àddu ci loolu. c'est-à-dire que man du ma ko du ma dëggal promo canapé parce que xam naa ci ñu ñoo xam ni ñu ngi feeñ bokk ci artistes te kenn defu leen ko. mun ma jël benn exemple ci Mariama mi toog euh, par exemple nit ki nangu ñu tëddee la kooku dafa la neex parce que liggéey jarlu ma may tëddee parce que man moomoo dama naan dinaa def aar boo xam ni euh, nit du taxaw ni moomoo mooma santaas. ba bi may bàyyee te du ma xam benn jigéen ngay def lu mel noonu ma la ci encouragé te du ma digal benn nit ngay def lu mel noonu aussi ma la ci encourager parce que euh, nañu bàyyi xel ni métier bi wërsëg la instant bi parce que cinéma la ñu wax c'est le rendez-vous du peuple casting ngay def woo Mariam mais art de façon générale non non c'est-à-dire que man man tey euh, bu ñu ma déggee ñu naan mile bi dafa yàqu wala dafa kii ñenn ñi dañ koy bokk côté cinéma acteurs yi wala actrices yi mais man je me dis ci nit la jikko nit la par exemple nag li ñu lay pousser parce que tey am na benn xale bu jigéen bu am situation boo xam ne par exemple mbënn mu toll nii ma jox la exemple kii ay jafe ñu fay ko benn 3 millions ci produire ba pare tëdd ko tam xalaat li mu bàyyi seen kër pour moom tëdd bi muy tëdd perte dara en fait dafa am ñoo xam ne dañuy jàpp tëdd benn affaire la benn affaire bu ndaw lañ ko jàppee nga def leen ko après nga may leen bës te après am na kuy séntu ni bu ma joxee sama bopp li may gagné moo ëpp c'est-à-dire tolluwaay bi moo xaw a doy waar. dinañ fi diggaat tey may dara <laughs> Mariama. boo déggee ñu ne promotion canapé. toi-même tu en étais victime n'est-ce pas. Mm-hmm. lan nga mun a wax artiste jigéen ñi aussi. Mm-hmm. lan nga leen mun a wax ci phénomène bii di daw. c'est que ji man damay ñëw ci jigéen ñi ñëw ci ñi nga xam te ñooy samay sœur samay mag ak samay rakk ndax aar léegi ni ko tontoo Sané di waxee dafa ŋaaŋ mm-hmm. dëgmal dëgmal jeunes yi dëgmal ndaw yi. ndaw ñëpp daw wuti ji aar mais nañ ko rafetal dafa am benn maire artiste bu mag nekk nekk arco Dakar mhm. benn jour daf ñu mos a jox benn conseil nee na sa image noo ko mën a protéger protéger ko ndax moo la yóbbu fu sori ci aar. Mm, bien sûr am na ñoo xamante ne xëy na xamuñu loolu. Mhm. te producteurs yi aussi tamit dañ ci am part de responsabilité gis ñoo xam ne sax ñu ay producteurs jaaji. voilà duñu ay producteurs. dañuy wut benn scénario bind ko créé ko. woote gas yi xale jigéen ñëpp daw ñëw puudaru maquillage ku nekk ñëw ñu jël liste bi xool xale yi ci mool du jël genre Mariama Ndiaye bi xale yi mool yëpp la ñuy jël bind seen tur. non mais yow tu es magnifique bu wax loolu tu <laughs> ñu ma gën a mool la ñuy jël. Eh. waaw léegi après ñu jël seen numéro yi ñoom ñëpp seen contact mm-hmm. léegi après ñu jox leen rendez-vous ci benn endroit bu calme na la ñëwal casting bi foofu la du ñu woo groupe de par benn personne la ñuy woo ñi nga xam ne ñoom lañ ñu bëgg a utiliser. man xam naa ci dara. ñëw na la kaay. scénario baa ngi nii yow laa bëgg a def actrice principale nga ni waaw mu jël la nax la raay la tëddee la mm-hmm. dama leen di jox conseil bu ci kenn nangu buzz bu mu tax nga yàq sa dignité mm-hmm. buzz bu mu tax nga yàq sa personnalité buzz bu mu tax am na ñoo xamante dañuy jouer film film bu def buzz fu ñu tourné ñu naan leen kaay ñu xew fu ñu tourné naa kaay leen ñu photo ay yow diw dama laa bëgg diwul mais ñoom bu ñu toogee seen conscience tranquille du ñu nekk ci jàmm mm-hmm. ndax xam nañ ne buzz boobu duñ ko amee baaxul mm-hmm. xam nañ ne buzz boobu seen yaram la ñu jaay pour am buzz nit liggéeyal nga xam li nga bëgg xam li ngay def gis nga ku la producteur bu la soxla moo lay woo ba nga ñëw liggéey loola te am na fi nag te tamit dañuy wax artistes yi mais gis nga artiste comédien yi am na ci ñoo xamante ni ñi nga xamante ne dañ leen traité ci art formé leen ci art gis nga yu ñàkk fayda yi doo leen mos a gis yenn yi ngay gis ñi nga xam ne xamuñu aar daw wut ci aar mais là bu ñu nee promotion canapé mm-hmm. de manière de façon générale en mm-hmm. art c'est-à-dire la musique mm-hmm. euh, la comédie la danse et autres bu ñu waxee art ne showbiz rek genre euh, ki ci nekk xam ko jàng ko du du subir loolu mais ki nga xamante ni xamagu ko nekkagu ci en général moom mooy subir promotion canapé ak yooyu. léegi nag après ñooñu dañuy jéem a dem jege ñi nga xamante xam nañ aar. Mhm. bul bëgg aar rek nala aar bëgg nga bëgg ko. yow bul bëgg aar dem wutali ji aar xamoo aar. Mhm. ndax aar yëfu saytaane la dafa am tuuti jinne mhm. dafa doy waar daal dafa doon loo xamante ne nekkul li mën a expliquer nekkul li làmmiñ di laal. aar dafa doy waar ku ci dugg defal attention bu baax nga xool mag ñi xool ñi nga xam ne xam nañ aar xool ñi nga xam ne ñu ngi dund ci aar pour sa tànk bi nga koy teg foo xamante ne fu baax la nga koy teg foo xamante ëllëg di dem ba màgget mm-hmm. dem ba tollu comme nam tata Marème ñoom ñoom ñoom ñoom maire yi fi nekk ni ñoom maire tat yi mama jatu bu mm-hmm. ar ko Dakar ah ñoom Jules de Libas Diallo ñu depuis ñu nekk xale ñu ngi nekk ci aar te kenn mosu leen a gis ci dara ah, lu ñàkk musiciens aussi ak musiciens yi waaw ndaxte léegi comme ni nga ko waxee sànk rek mm-hmm. da ngay sekk nit ki ngeen di ànd muy neex ngeen xamante ku ci nekk ama xama sa morom secret ku ci nekk bu paree chantage ñëw mm-hmm. chantage ñëw problème am lii am te kenn ku ci nekk ci yàq xamoo ne sa morom nga yàq mm-hmm. kenn ku ci nekk bu woon sa morom xëy na sa image mën na bañ a yàqu à voilà protégeons les images foofu la ñu doon dugg see fii laa bëggoon ñu ñëw parce que tubaab danaan entrer en matière way wax rek dafa am noo ciy dugg see moomu dañuy ñëw ci yàqante indi nañu cause bi lan moo ko waral promotion canapé bokk na ci xale yu jigéen ñi amatuñu dignité xale yu jigéen ñi bëgg nañu buzz bëgg nañu siw te yeewuwuñu moomu yàqante der bi yàqante der bi métti xam nga xam nga man walaay li may métti chaque jour mooy nga am soxla dem ci nit mu fajal la ko soxla quoi parce que jigéen jigéen gi dem jigéen gi dem jigéen gi dem fanaan ci kër goo dafa am soxla peut-être soxla bi neexul wax parce que jigéen daa fa muy toll. fii amul wuñ fii nekk. <laughs> dañ walaay walaay xam nga. Pape ma toppandoo doyen fii amul xam nga xam nga xam nga jigéen day toog. amul jëkkër wala mu sëyoon ba tas. dund benn affaire après gis benn benn jaaji xemmeem ko yow mu jaral nga dem appartement fanaan ak moom mu tëddee la en fait ngeen def seeni vidéo sinap après mu dem benn saa mënatoo jot ci moom nga ne da yàq deram. moom loolu laa nangul parce que fajal na la sa soxla tamit benn yoon. mais defal nànk benn bi non xaaral naan <laughs> maanaam soxla fu mu am rek maanaam pacte am na fa. léegi maanaam entente am na fa. c'est que jaaj fi may ñëwee ci moom fi may ñëwee ci yow doguma la mais. Ah. maanaam tëddante mën na am te vidéo du am. du am tamit nañ man léegi dama am lu ma xewal jaaj daa dama lu ma xewal léegi man ku dugg suñ kër da ngay fay sa téléphone rot cee pis. ba génne nga monté. Mariam wuyu yow nga ne ci loolu loo ci wax. ma ne ko tëddante mën na am te sinap du am aussi nañ suturaa suñu bopp. mais defal nànk defal nànk lan moo tax tëddante di am mais lan moo tax tëddante di am ci soow piis dafa jar tëddante. non jaru ko c'est comme li ma wax sànk rek ci laay ñëwaat. Mhm. nit kenn ku ci nekk da nga war a sàmm gis nga soxla lu mu am lu mu rëy rëy rëy rëy soo toogee rek suñu borom dina la ko fajal. Mhm. soo toogee nga liggéey nga gëm sa bopp xam bu baax jaaji mi tey su ma amoon soxla ñëw ci yow. en tant que frère. ma fajal sama mais bu ma la wanee na la il faut que yow man ma jox la sama bopp pour nga fajal ma sama soxla da nga ciy profité waale. jaaji mën na ma dund loo xam ne barke Serigne Bamba dañuy def benn casting au niveau de BCEAO du ma wax série bi parce que ma wax série bi dafa xam dañuy xam après man bokkoon naa ni porté woon casting bi mu lancé woon ko après ñu dund ci lu bëri mais ki nga xam ne moom moo bindoon scénario bi après day woo kenn par kenn ci jigéen ñi après dañ may woo moomoo eh, tey yaa ngi fa ñu ne ma dañu a demaat BCEAO ñun ak ah, ma ne ko kan mën ma woo diw ak diw ma ko wool diw ba xam ci la bokk après moom dafa dem ba dafa tiit benn gel bi moom ki ci gën a nooy bopp saa yi daf ko mujjee ëmbal mhm. te mujjul parce que moom moo ko doon fekki BCEAO. image gel bi Kër Masar la doon jógee bu ma déggee dana xam moom laay waxal. Mm-hmm. te wallaahi woo naa ko ci pet ba sonn ñu waxtaan ci mais doon gis ni moom mi benn nooy booy la or que du nooy booy da nga xamoon sa waay fan la nekkoon. Mm-hmm. léegi jigéen ñi lu ñu leen def d'une part da nga leen koy yéene. waaw man waaw parce que dañuy jël seen bopp def ko benn benn genre benn genre benn genre objet boo xam ne da nga ñëw utiliser dem. te wallaay warul demee noonu warul demee noonu ñun ci milieu bi la ñu nekk. Mm-hmm. xam nañ ci lu bëri fu nekk la ñuy dugg fu nekk la ñuy dem ñu nekk leen ciy toogal. mais am na ñu ma nawloo ak ñu ma nawloowul ba pare dañ xàmmee wuñ fan sa club ak nawle par exemple da ngay gis benn moomoo tey suba ci tele bi suba ngeen dajee yow da pare pour jox ko sa lépp te fans la war a doon te fans la war or que tamit fans bi am na fu mu war a yem mais tamit da ci am benn genre artiste yoo xam comme man dañuy daj seen benn fans mu mool nga bëgg am ci moom accès benn accès bi di ko woo ay di matin wala mu lay woo nga koy jël di ko message xam nga yooyu day dem ba nit ki daf lay miin te jigéen bu miinee benn léegi yow Euh, dañuy wax mais bu ñu waxee ni yàq der yàq der ci yàq der bi laa bëgg ñu appuyer. Mm-hmm. mais tamit Mariam neexul nga jël nit. am loo leen wax fooye ko. Mm-hmm. dox ci maayanam ba yàq lu ci moom. Mm-hmm. nga ne ko dinaa la defal lii après doo ko def. mais xale bu jigéen bi wala xale bu góor moom tamit dafay obligé moom tamit jéem jéem nga détruire. tous les moyens sont bons. léegi man damaa bëgg xam est-ce que yàqante dar der jar na ko ci aar. moo tax dalaa yóbbuwul fenn. non jar na ko. jaru ko moom jar na ko non daf ko jar daf ko jar euh, daf ko jar xam nga lu tax xam nga lu tax da nga lu am solo. Mhm. nit day toog dig la ne la dinaa la produire série bi yaa nekk acteur bi. Mhm. tëdd la banga nga yàq après mu bàyyi la. de mhm. da ngay fayu ñun Sénégal lañ nekk fi ñu doon nii ñun. ba ñun dañuy dañuy c'est-à-dire bi moo moo moo garaaw te c'est-à-dire ki tooñ chaque jour dañ koy attané moom moo tooñ te walaay daa fayu. mais est-ce que tamit comme ni jaajo ñun ñun du ñu yeewu. non du ñun en fait du ñun xàmmee ñi nga xam ne dañuy ah, liggéey xàmmee ñi nga xam ne tëddee la lañ bëgg. Mariama du man Mariama du ñun quoi. parce que maa ngi ñoo wax benn kuréel bu ñu nekk mais Arcos bi Guédiawaye di nuyu président de passage monsieur Ibou Fall ak ñëpp ñu fa nekk. man amul benn producteur wala benn scénariste bu ma sañoo di ma def loolu ñaax fayda. Mhm. waa ju baax toog nañ ñu woo ko fay ko ay millions Papa Dembi Fall yàlla na ko yàlla yërëm fay nañ ko 5 millions ci benn yërëm. Mhm. Papa Dembi Fall mhm. mu bañ. delluwaat naa ko fay nañ ko cinq millions ci benn yërnu mais après moom lan lay yërnu bu yërnoo ñu tegal ko prono nag mm-hmm. après dañu naan dem bi prono loo doon seetaan mm-hmm. c'est-à-dire que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo jël seen bopp def ko benn objet ñu leen di utiliser mm-hmm. benn producteur bu la neex Sénégal nga ne ko wol Momo Sadio sant ko day xalaat parce que xam nañ kii kan la en fait du tele laay wër du suske laay wër du buzz man buzz laa gën a ragal ci àdduna barke Cheikh Ahmadoul Khadim buzz benn affaire la buy ñëw dem mais dina xoolal tey c'est général ma gis acteur wala actrice wala comédien wala comédienne bu nekk au niveau de Dakar wala au niveau de Sénégal xamul moom wala moom moo xamul mhm. raar na mhm. mais du lu ñàkk fayda lu ma leen di wan du lu ji non man télé sax da nga ma a ma la ñëwuma mhm. ñëwuma laa la parce que am na ci leneen en dehors des métiers dafa am ci leneen lu ma nekk loo xam ne loolu nit ñi xamuñu ko mais ci lii lañ ma xam donc nañu mettre suñu bopp en valeur jigéen ñi tëdd nag <laughs> loolu moom <laughs> boo demoon ci daayira bi sax am na ñuy tëddante daayira laa la wax woman showbiz mais am na ñu ne ci mbiru showbiz bi non parce que non non showbiz bi xam nga jaaj xam nga tax man dafa metti xam nga dama d'accord showbiz dafa am koo xamante ni daf ma woo mhm. ñu am ci ñu waxtaan mu woo ma ba pare ñu waxtaan jour boobu xaw ma lu ma fanaan ndax daf ma metti mhm. mais lan mooy ndayu yow nga gis nit mu bëgg dara mhm. yow au lieu nga mettre ko ci dans les condition ba mu dem mais nga koy fooye mais lan moo tax loolu mais nañu waxante dëgg dëgg la xale jigéen ñi certes bon immaturité mën na am. Mhm. mën nañu bañ a dévalorisation bi mu ngi fi mais tamit nit da ngay baax. Mhm. jël bonte nga cultiver ko sa bopp. Mhm. mais aussi lu ma bëggoon tamit ñu wax euh, benn phénomène la bu fi am. muy suñu ñaari naat naataango comme yéen seen naataango ci aar bi. Bril ah Bril ak Dieyna dañuy wax ci loolu rek. Euh, xamuñu nu mu demee. Mhm. xam nañ nu mu demee suñu yoon nekku ci. Mhm. l'essentiel dañuy ñaan yàlla na jàmm am ci loolu noonu. te tamit ñuy wax ci bile phénomène. Mhm. artistes yi na ngeen mature. ngeen mature ci seen bopp. producteurs yi bàyyi leen di profiter ne vous êtes pas ne vous transformez pas en des profitards. nit looy liggéey dafay sell moom moo ci loolu loo ciy àddu lay wax ci loolu. c'est-à-dire producteurs yi man je ñu ngi def seen liggéey wallaahi. c'est-à-dire cest à man man dama dama ko man dama ko c'est-à-dire man dama laa mel nga condamné daal non si man saay jaaji barke yàlla ci suba dama yeewa sama yaay ni ma dafa mhm. am benn waaye bu ñox dafa xaru moom ma ma ko annoncé ma yeew faa may sangu ma ne ko man est-ce que am na lu ma nit mën a def ci àdduna ba ma xaru man parce que gëm-gëm boobu la am en fait gëm naa ne ma nit mënu ma utiliser ci milieu bi mënul am mhm. bu fekkee ni xel mu sell nga may jaay am na loo ma ci yàlla may mhm. ba pare dafa am gis nga ni da ngay làq sa bopp par exemple tey da ngay jël benn Momo mu làqu ci ginnaaw jaaji ja Momo bala ngaa jaar ci ginnaaw da nga xalaat ni ah jaaji kat mm-hmm. da nga jaar ci jaaj en fait mais munoo munoo jël munoo doon benn Mariama sol sa dàll label mission de prédiction bi rek nga dugg fa dama bëgg tourner dama bëgg def ni gis nga gis nga gis boo jëlee sa sa sa dund gi teg ko ci siiw ak xaalis mm-hmm. barke Serigne Bamba loolu métti rek ngay dund te ñun Sénégal loolu suñu problème muy xaalis mm-hmm. te walaay du dara ma jaaji barke Cheikhul Khadim bu ma yeew am fukki dërëm laa gën nekk en su ma yow am cinquante mille sama bopp dama am problème parce que maa ngi xalaat lan laa ci war a def sama yaay ñaar la ci war a am wala Mariam ñaar laa ko ci war a may parce que chaque jour nga gis ko war a dimbali en fait ba ma yow yoruma dara nag fukki dara mu mburu ma dem ndekkee ko ñëw toogaat soo ma dem joobi nice yow daal da nga bëgg wax ni que nit ñi ba nga ñëw dugg ci dara il faut ñu saytu ko xam ko xam nga xam nga dafa am ñaar tey bu fekkee da nga bëgg nekk artiste maison yaa ngi fi arcoche yaa ngi ngi fi troupe théâtre yaa ngi nga jàngi arcos dañ lay jàngal ah. groupe musicien yaa ngi fi groupe chanteur yaa ngi fi école chanteur yaa ngi fi école ah, danse après ñoom dañ lay jàngal mettre ay valeurs yoo xam dina tax nga sàmm sa bopp mm-hmm. mais tey bu Mariama ñëwee saal ñu bokkandoo arcos répété ba pare Mariama génn joxe boppam ci mbedd ba lu ci man mais mais man lu may metti Mariama pardon ah pardon si ci moom mais Mariama tëbul tëb rek def dara non tëbul mais il faut que am euh, moom non tëbul tëb def dara ma dafa am benn ankay ankay gis nga gis nga gis nga ala kii tamit euh, producteur yi mhm. mais gis nga dafa am chaîne boo xamante ni dafa am mhm. gis nga xale jigéen ñi léegi mhm. dëgg la ñu ngi ci aar bi di way di fecc di def lépp mais dañoo am problème problème mu mooy gisatuñu yaay bu ñu waxtaanal gisatuñu maam bu ñu waxtaanal kon yeewuwuñu bu ñu demee kon donc am suñu talent ak suñu passion pour éprouver ko ko. Mhm. kon bu ñu demee ci ñoom mais war nañoo teg ci bon condition. Mhm. teg ñu ci loo xamante ne dañuy dem mais pas ñu profité ci ñun. man ci loolu moom moom metti jaaji barke yàlla am na xale jigéen yeewoo seen yaay yeewoo seen baay yeewoo seen maam chaque suba chaque jour ñu leen di tëdd te ñu ne ci milieu bi tëddewuñ leen. c'est-à-dire loolu jikko la en fait il faut ngeen d'accord que ni jikko la. jikko la waaw surtout jikko. jikko la quoi en fait man man man ñaanuma yàlla sànqal benn xale bu jigéen. mais moom des fois nga gis koo xamante ne li ne ci moom dañ ko cee def. des fois nga gis koo xamante ne lii melu ko woon. man moomoo man c'est que euh, yi dañu am en fait benn euh, complexe comme man arco Guédiawaye laa nekk yàgg naa répété pendant de années maa ngi répété suñu waa koñ dañuy dem ba dañ may moqué. Mm. Mariama arco chaque jour arco gisuñu la fii gisuñu la faa. yow sama benn frère bu siiw macha allah maa ngi koy nuyu de passage grand-père danaa ma Mariama yow da nga rëy art bi pour nga kii ci il faut nga oyof il faut nga wàcc sa bopp il faut nga def lii mm-hmm. ma ne ko non non man grand dama dul nangu man ku may ñàkkal fayda mm-hmm. du ma nangu ku may manqueel mm-hmm. bëgg a siiw wala ma bëgg a tourner wala bëgg def dara du tax man mooy topp ci ginnaaw ni di lamba lamba di man may def yenn yi yenn yu bari li koy indi tëddee géeg li koy indi mooy topp ci ginnaaw ni muy ci musique bi muy ci fecc bi muy ci fépp bëgg bës topp ci ginnaaw nit gis benn benn jaaji artiste la waykat la mu ngi toj fu ne nga topp fu jaaji tourner nga téyal ko saaga fu jaaji tourner jaaji bu bëggee dóor day dóor ndax yow yaa ko ko yombal il faut que ñun ñu yeewu ñun ñu xam ni ñu bëgg bu ñu am complexe yi lii nga bëgg lii ngay def nekk ci gis nga kenn ku ci nekk li sëñ Fall waxoon rek boo bëggee dem da ngay taxaw ci yoon bi mhm. saa su nekk fekkee yaa ngi taxaw ci yoon bi bés dina ñëw nga dem nga yegg fi nga xam ne fa nga bëgg a yegg mhm. mais fekkee da nga ko bëgg a def ci gaaw diw de tay la géem Mariama Ndiaye chaque jour muy dem aar ko kenn xamu ko diw de tay jii lañ ko jël macha allah toj na xew na am na buzz mhm. kii de est ce li muy lan lay wuti aar ko lan lay def lan lay def laa man xam naa li may wuti aar ko xam naa aar li ñuy def ci man xam naa li nga xam ne moom laay dox bu ma xamee li ma bëgg rek ma jeex na kenn mënu ma détourné kenn mënu ma def loolu loo xamante ni ne neexuma hmm. ndax xam naa li nga xamante ni ne moom laa bëgg te tamit dafa am ci jeunes yi nga xamante dañoo siiw hmm. sama benn frère danaan man gerte yi sax la koy waxee waxee mu ne Mariama man ñi bëgguñu ma bëgguñu ma en tant que artiste xam nga lan lañ bëgg toog diw de xool ko mooy def émission sama copain la xam ma woo ko allo diw wan copine mi ne diw de man lay génn léegi nag nee na kooku gerte la man damay toj rek ndax moom ñëwul pour bëgg ma ba ma kenn xamulee mm-hmm. mu ne am na ay gel yoo xam ne ba leen ko kenn xamulee da leen doon topp di leen doxaan léegi ñoom daal man si je comprends bien ñoom loolu dañ dañ du ma ci du ma ci du ma ci d'accord ak ñoom parce que parce que xam nga mu d'accord moom mm-hmm. man am naa rakk jaaj am nga rakk Maria am na rakk mm-hmm. jaaj yaa ngi bi yaa ngi gis nit ñaa ngi lay bëgg nga nekk am am ay fans donc man du ma d'accord ne kii damay profitoo ci moom ma d'accord en fait gis nga gis nga fi ñu toll ñun dama koy wax chaque jour jigéen ñi matuñu wallaahi boo xëyoon jaaj na ngay wut xale boo tëddee balaa ngoon nga am ko. balaa ngoon fi nga toog nga toog woote ñu wuyu la. léegi dafa am benn affaire bu am mooy yow dama siiw damay nax xale yi pourtant yow mu siiw yaa leen war yee yow war nga leen ni leen ah fii si du code bi code bi nii la parce que am na parce que tey parce que la dama non dama gis dama dama gis benn seen dama gis benn seen maa ngi koy de passage ba Pape Doudou Edo bu infidèle xam naa Edo ngeen di gën a xam Edo dafa toog benn jour benn xale bu jigéen bu ko lu ko yaa wax du ko def moog yaa ji duñ laal mais lu ko Edo sant mu def ko Edo mu naa boo yeewoo seen kër del bale del raxas bool ainsi de suite ainsi de suite kooku kon kooku mu ngi mu ngi dimbali mu ngi dimbali kooku mu ngi dimbali mu ngi dimbali xale boobu parce que bu noon xale boobu chaque jour day ñëw sama appartement xale bi day dem xale bi day dem yondu ak moom mhm. te pourtant euh, Sénégal dañoo am benn affaire euh, am na de mos naa toog benn jour ñu naan sawaay non nii li muy joué noonu la mel mhm. te wallaahi nit la koo xam du si gis sax xool nit dëgg la yow muy góor sa ba ko ca loxo day da lay xool mhm. te pourtant personnage nañ ko nañ ko jéem a jàng nañ ko jéem a xam personnage nañ ko moom boobu moom nañ fi ñëwaat nañ ko jéem a xam ci personnage man daal léegi moomu euh, metti na ma xol laay waxee quoi parce que neexu mhm. parce que dañuy am ay mag man caat laa waaye tamit bëggoon a am rakku jigéen am na ñu am ay rakku jigéen ñoo xamante ñu ngi bëgg ci aar bi mag yu jigéen mhm. kon donc phénomène bu ñuy déplorer la producteurs yi nañu bàyyi ñu ñuy chantage ak di leen di nax. ak faux producteur ak faux parce que tamit dinañ ñëw ci émission boo xamante ni fonction boo xamante ni appropriée au per à la personne la. parce que man man ci producteurs yu baax aussi. man man faux producteur moom la ci dara faux producteur yi gis naa ci koo xam ni da nga bind scénario yow bi nga bindee scénario bi présenté ma ko. man moo jël scénario bi def casting woote te yëgoo ko. Mm-hmm. loolu moom sàcc la c'est du vol. non moom leer non non moom leer na ko moom mënul tourner. Mm-hmm. mais na def casting bi def ci numéro ci suuf xale yi woo ko mu tëddee la. ah loolu ci man gis naa ñu ko def tax xam naa leen dañ may fréquenter. <laughs> léegi imaginer imaginer kooku noonu. c'est-à-dire cest à moom am na fula de. moom am na fula parce que moom li ko ñor mooy que tëddee ki ñuy tëddee kan la. Mm-hmm. mooy ki xamul dara. c'est ça cest à war a xam. waaw dama d'une part dama dama ci dama ci mere ñu bëri mm-hmm. am na benn am na xale yoo xam ne maa ngi koy wax sànq ci salon bi ma ni pot mu muy yóbboo xale yi euh, euh, fële il salon am na ci responsabilité bu mag mm-hmm. parce que mënoo jël ay xale yoo xam ne xamuñu lu bëri en fait parce que Sénégal li garaaw da ngay gis nit yor nga dab yaram nga naan kii am na xam-xam fekk xamul dara mm-hmm. boo compté cent jigéen cent cinq ñoo ci muus wala six nit ca ñëpp ay xelu jigéen la ñoo léegi nag ki yor jigéen yow nga jël ko déplacé ko ci dëkk pendant des un mois wala deux mois mu nekk foofu di tourner ñun def nañ ko du benn du ñaar léegi liñ fay dund lan la ñu dem nañ tourner ak Mbour da ngay gis jigéen ñoo xam dañuy tourner ba ba benn sens bu ñu tëddee laa moom ñëw bu ñu tëddee dañuy dégg dugg ci néegu góor yi noonu inshallah mm. mais loolu loolu nag nañu nañu nañu jéem a mat comme ni ma koy waxee ko kon toog naa ak sama benn copine ma ko gis nga am na ñoo xamante ni affaire u simmeeku yeeg yi ngay gis ci téléfilm yi doo leen ci gis mm. ndax ci niñ leen yaree xalaat nañ ku mel ni Fatma Mboup ay yéreem ci ci ci séri ku mel ni Bintu Jaw sama xarit du def loolu ku mel ni Daaro Caam du def loolu ku mel ni Mami Pata du def loolu ndax formé nañ leen rus nañ xool tonton papa yi gis ne kii de élément at ko Dakar la mm. mu ngi simmeeku ci seen maanaam dañ lay yar ndax xale yi dem ci mais ñi nga xam ne dañuy jàngale aar ñiy way ñiy way dem ci ñi nga xam ne dañuy jàngale aar ah, ñu formé leen wan leen wax wax leen ñoom ñooy kan def ay individu ci ñoom ak ay personnalité ci ñoom mm. ëllëg fu ñu dem dañuy xam ñoom ñooy kan kenn du leen defloo nag su dul noonu tax tey formé nañ leen ci nañ dem jàngi aar ak lan la ñu war a doon ak ci nu ñu war a dundee ci aar tey xam naa ni nag émission bi neex na ndax dañoo invité ñi nga xamante ni euh, boo leen dégg ñuy wax ci wàllu comédie ak wàllu théâtre parce que ils sont dans ce quoi mais parlons de manière générale art mooy musique mooy danse mooy lépp loo xamante ni day day soo showbiz bi mais tamit momo dafa am tamit loo xamante ni mu munuñ munuñ cee ñàkk wax jeune talent yi di ñëw ñii di way ñii di fecc ak comme ñii di def ay humour théâtre mm-hmm. est-ce que jotul ñi ñu war ngeen former mm-hmm. état aussi war a basé wu ci ci ci ci domaine boobu mm-hmm. pour ay centre de formation yu wóor teg ngeen ci nga xamante ni benn problème dootul am loolu moom état war na ci jóg état tamit war na jóg ci ñi nga xam ne dañuy profité xale yi mhm. ndax loolu tamit état am na ci part de responsabilité bu rëy xool ñi nga xamante bu fekkee da nga bind sa scénario nga xool foo ko yóbbu ñu xam ne yow mii ba xam producteur nga wala doo producteur mhm. ñu saytu sa li ngay def xool ni ngay demee BSDA ñu protéger sa sa sa sa sa sa scénario wala sa œuvre mhm. nañ koy xool ñuy saytu ñi nga xamante ne ñooy ndax aar fu mu toll ñëpp dañoo riir dëtmal aar te état boo ne état ne jeunesse ndax jeunesse bi ëllëg ñooy doon état ëllëg kon tamit état na ci bàyyi xel xool bu baax xale yi di xool bu baax ñi nga xam ne ñooy nekk ci ginnaaw xale yi di leen jàppale ndax xale yi soxla nañ aussi ku leen jàppale bu baax a baax a baax soxla nañ ko moom moo lay wax ci loolu non man du ma du ma laal état parce que état moom pour man benn affaire la fi rek tey xoolal actrice yi gën a siiw Sénégal nga woo leen laajal ñaata faru ministre lañ am moom bu si non da laal da nga laal quoi da laal wowal wowal wowal actrice yi gën a siiw non non non si non maanaam état bi c'est leur devoir mhm. que ñu former jeunes yi mhm. xam nga tax duñu leen former xam nga tax leen former tey benn benn ministre mooy am benn benn gelu mariama bi act acteur la ak actrice la mu ngi ci milieu bi xam na. non non non non damay. <laughs> c'est-à-dire Mariama tàggatoo. <laughs> non tàggatoo Mariama tàggatoo ak waa TMS TV. waa jaaji maa ngi kontaan bu baax ci dalal bi ngeen ma dalaloon fii ci TMS TV di la di la jaajëfal bu wér a wér mon frère di jaajëfal Momo sama sama sama xarit sa doom nday mhm. waa di nuyu waa Arcos Géeja waaye di nuyu parcelle gi nga xam ne fa laa jógee di nuyu ñëpp daal di jiyaat ba Jili Mbàkke borom léegi léegi sama yaakaar di waajal màggal bu baax kontaan naa moo rafet na ba pare ñu gisee <laughs> tàggatoo ak yow tàggatoo ak yow bu gaaw tàggatoo ah, jaajëf maa ngi lay nuyu di nuyu Mariama sama xarit la wax dëgg yàlla muy nit ko am fulla nga xam ko ci milieu bi man soo gisee ma ñi may ànd ak jigéen rek wala mu jigéen ma rek am na ku mu doon parce que dama xaw a doy waar man bu nit bu xamul boppam rek bu ma fréquenté ah, léegi bu baax yow mi nga xam ne yaa ñu dalaloon di jaajëf waa internet TMS TV di kontaan ci émission petit matin bi xam mooy bu baax bi émission bu mag bi ah, waaw di bu baax a baax waa Géejawaay ga ma jógee mm. ah, di nuyu bu baax sama waa dëkk ma xam man damay booy saalu mm. démb am na ko ñëw di ma jaay produit naa ma day weexal bañ ma ne ko man carte d'identité laa yor <laughs> xam naa caaxaan na ko jàppe di béggee bu baax a baax sax équipe technique bu baax di bég di nuyu suñu xarit bi Thierno mm-hmm. la xarit bi général kuuru jinne waaw maa ngi koy caar baax sama xarit la maa ngi koy nuyu baax la di kontaan ci yow <laughs> ñoo far ñoo far mbokk internet yi tamit euh, lépp lu fi dëng rek xam ngeen du ñun parce que apparemment bu ñuy wax ci léegi benn thème waruñu kaa cof dañ kaa war a wax toj ko mu jeex ñi ci jariñu jariñu ci ñi nga xamante ni dañ leen ci war a épargner de façon négative ñu dindi leen si bépp mot d'obscénité boo ngeen fi dégg xamal ni pour defar rek a ñu tax a jóg mm. defar moo ñu fi teg te moo ñu moo ñu yëkkati aussi lu ñu wax muy loo xamante ne lu baax la du ñun ci borom bi la lu ñu wax loo xamante ne lu dëng la ngeen jéggal ñu ko te xam ne ñun la mbokk internetu TMS TV yéen ñuy safoo seen émission petit matin ñu leen di nuyu di leen joxaat dig daje ba beneen yoon ak seen présentateur poète di nuyu nag kilifa borom kër gi Alaaji Thierno Moulay Sow di nuyu borom këram di nuyu Euh, waa régie Pape Pape Diagne ah équipe euh, Kara 221 yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sama invité Momo ak Mariam kontaan naa trop yéen. merci ba beneen fii nga bu leen daw.